waxtaane lay waxtaane borom bi mi waxtaane lay waxtaane borom bi kuri bu yàlla yépp moo di sëriñ saaliwo ana soppey sëriñ ni ko jóg di wax na wax li fi jar wax ni ko jóg di wax na wax li fi jar wax ku fi jóg di wax na wax li fi jar wax li fi jar wax de mooy Serigne Saliou Mbacké ku bëgg Serigne Saliou loxo ku bëgg Serigne Saliou loxo ku bëgg Serigne Saliou loxo ana soppay borom waxtaane borom bi waxtaane laay waxtaane borom bi turi bur yàlla yépp moo di sëriñ saali woo ana soppe yi sëriñ saali woo asiq bi ci cunu de nee nan way la asiq bi ci cunu de nee nan way la ni sa bi ca cunde nee nanu way la sëriñ bi ca cunde nee nanu way la di la waxtaane Mbàkke yaay ki dundal xol ku bëgg sëriñ Saliou loxo ku bëgg sëriñ Saliou loxo ku bëgg sëriñ Saliou loxo ana soppay borom jannatoo seex bi ca cunde nee nanu way la ni seex bi ca cunde nee nanu way la ni seex bi ca cunu de nee na nu la di la waxtaane mbaaka yaay ki dundal xol yi ñun neex ana soppay Serigne Saliou ni ku jugu di wax na wax li fi jar wax ni ku jugu di wax na wax li fi jar wax ni ku jugu di wax na wax li fi jar wax ni ku jugu di wax na wax li fi jar wax ni ku jugu di wax na wax li fi jar wax ni ku jugu di wax na wax li fi jar wax Mbàkke ku jugu di wax na wax li fi jar wax li fi jar wax de mooy sëriñ Saliou Mbacké maa bëgg sëriñ Saliou sëriñ Ismaïla nee nañu way la Sali xaadi jaayu nooy jaayu ci sëriñ Saliou Sali xaadi jaayu nooy jaayu sëriñ Saaliwo sëriñ Saaliwo ku jaay raw sama se raw sama ki deral na ma woo julleen ñu àndandoo àndandoo àndandoo sant sëriñ Saaliwo sëriñ Saaliwo julleen ñu àndandoo àndandoo àndandoo sant sëriñ Saaliwo sëriñ Saaliwo julleen ñu àndandoo àndandoo àndandoo sant sëriñ Saaliwo jannatul maxwa sunu waa ji teral na xoolal masix bee jotu katam ya xoolal masix bee jotu katam ya nitu kat yi mooy wéral sunu cër yi nitu kat yi mooy wéral addukat yi may wéeral sunu cër yi di ko feccal di ko màggal di ko feccal di ko màggal ku jara feccal ku jara màggal ku jara feccal ku jara màggal ku jara feccal jara màggal ku jara béjjal ku jara màggal saali xaadi dukat yu may wéral sunu cër yi dukat yu may wéral sunu cër yi ku bettale man ko jaaje fa manqué woon ana soppi Sëriñ Saaliw sa waay du ñee waayu keneen ndax sa waay du ñee waayu keneen ndax ku fi am yaa ko joxu sëriñ Saliou Mbacké ana Sali Xaadi jay leen yéen soppi Saliou yim ne ji seen xol yéena moom lii nde way wiyee nay borom ndeysaan ay waay yéen na moom way wi kon jaay leen ci way wi yéen na moom way wi kon jaay leen ci way wi mani duggat leen tey ma way Sëriñ Saaliw ndeysaan ay waay billaay saalixiina yaa ngi ak saalixaani saalixiina yaa ngi ak saalixaani yéena moom lii way wi yéenay borom doy man lu baax ma jox la yaa ko yelloo saa way wi sëriñ Saalim ndeysaan ay waawale yee nay billaay man ñàkku may eer njaase man ñàkku may eer ba lu ma gis mu neex Mbàkke laa la lu fi lu taaroo Sëriñ Saaliw kenn du Sëriñ Saaliw سال أيوة أبلاي لو بخسرين سالي ولو lu fi baax Serigne Saliou Lo lu taaro Serigne Saliou kenn du Serigne Saliou saali woo moonu saf wax leen ko yoonu suy lañu saali na ñépp wax loolu sëriñ saali woo moonu saf wax leen ko ay sëriñ saali woo bay ablaay sëriñ saali woo nu saf wax leen ko ay woo ana soppay borom jannatu fu ma déggee tuuram damay yëngal may yëngatoo ku bëgg seex sall jugal yëngatu fu ma déggee turam damay yëngal may yëngatu ana sot bay borom njàpp ndal fu ma déggee turam ma yombe ba limbér weeli dëgg la ana sot bay borom ñibbi ngal fu ma déggee turam damay yëngal may yëngatu surtout imam jar na jaayu fu ma déggee turam ma yombe ba limbér weeli dëgg la ana soppay borom jamono ku tuuram yëngal juugal yëngu ci lii ana soppay sëtub imam be ku tuuram yëngal juugal yëngo ci ni sëtub imam jar na yëngatu ku tuuram yëngal juugal yëngo ci lii ana soppay borom jàppandal ku tuuram yëngal ma yomb ba leen surtout bi imam jar na jaayu ku tuuram yëngal jugal yëgoo ci lii ni surtout bi imam jar na jaayu ku tuuram yëngal jugal yëgoo ci lii na nga fi way yaa teral jàmm ñi yaa siggil jàmm ñi lii lépp yow la man danaa la fi way Cheikh Saliou ma saf wax leen ko Sëñ Saliou fu ma déggee tuuram damay yëngal may yëngatu ana sa pay borom njàpp ndal fu ma déggee tuuram ma yëmba ba limber weeli dëgg la na soppay borom njàpp ndaw ma déggee tuuram dama yëngal ma borom njàpp ndal fu ma déggee tuuram ma yëmb ba limbeer weli dëgg la ana soppay borom njàpp ndal fu ma déggee tuuram damay yëngal may yëngatu Cheikh Sall jógal wane ko ku tuuram yëngal jógal yëngoo ci lii ñoo bëgg sëtu bi imam bi ku tuuram yëngal jógal yëngoo ci lii dajale na bàyyi faale ñi setal dëkk bi dëkk bi Serigne Saliou onu sax wax leen ko ah ndeysaan fu ma déggee tuuram damay yëngal may yëngatal yëngu naa ay waay fu ma déggee turam weer dama yëngal ma yëngatoon mbàkke naa la fi wax ya teral jàmm ya sigil jàmm li lépp yow la man la naa la fi wax Cheikh Saaliwoo fu ma déggee turam ma yomb ba limbéri wéli dëgg la ah. ndeysaan fu ma déggee turam damay yëgal may yëngatoo ah soppey jili eh! wax leen ko ah borom jamono ma déggee turam we dama yëgal ma yëngatoo ah, ma déggee turam damay yëngal may yëngatal ah ndeysaan bu ma déggee turam damay yëngal may yëngatal ana soppay Sëriñ Muntaxa bu ma déggee turam damay yëngal may yëngatal ana soppay Seex Abdu Xaadar bu ma déggee turam damay yëngal may yëngatal li borom baxdaat fu ma déggee tuuram damay yëngal damay yëngatu jiili jiili borom baxdaat fu ma déggee tuuram damay yëngal may yëngatu jiili jiili borom baxdaat fu ma déggee tuuram damay yëngal may yëngatu jiili jiili borom baxdaat fu ma déggee tuuram damay yëngal may yëngatu jiili jili borom baxdaat fu ma déggee turam adamay yëngal may yëngatoo ni satub imam jar na yëngatu fu ma déggee turam adamay yëngal may yëngatoo dajale na bàyyi faal yi ñuy seetal dëkk bi Sëriñ Saali woo onu saf wax leen ko ana soppay borom baxdaat fu ma déggee turam damay yëngal may yëngatoo jiile borom baxadaat fu ma déggee turam te damay yëgal may yëngatoo jili borom baxadaat fu ma déggee turam fu ma déggee turam te damay yëgal may yëngatoo ilimaani ma déggee turam damay yëngal may yëngatoo sama ma ñuy jiite pour ndege turam dañuy yëngu ma ñuy jiite pour ndege turam ni sama ma ñuy jiite pour ndege turam. surtout ni sama ma ñuy jiite pour ndege turam. ëllëg sama ma ñuy jiite pour ndege turam sama ma ñuy jiite. ano soppay borom baxdaar sang bi fun dëggee turam maama nuy jiite ano soppay sëriñ fu ma dëggee turam weer yëngatu kenn du la tuutal kenn du la ñaawal kenn mënu laa tegu tuuma ndax yàlla seetal waay kenn du la tuutal na ñëpp wax loolu. tout le monde. ay waay kenn du la tuutal kenn du la ñaawal kenn mënu tegu tuuma ndax yàlla la seetal waaw déedéet. ndeysaan kenn mënu laa tegu kenn mënu laa tegu tuuma ndax yàlla la seetal waaw waaw ndeysaan la ni yaay ma la may yow may la jëmmam jaage waay rabbani la nu yow altine la atiba talaata la xëy dem altine la atimba talaata la xëy dem sëriñ Saliw na leen moo du yàqu te doo yàqule dëgg-dëgg am sëriñ bi ci cuub gam gam loo billaay wallaay cuub i jaay njureel yaa day maam baayu ndey mbiyoo deefu la gam gam loo billaay wallaay cuub bay mbaay na sangam lu dul dee raasin joob way sangam ba ibrahima ja sangam ba maa gën a tuute ci ko way dëgg-dëgg am mooma ah sëriñ bi ci cuur deesu la gam-gam lool Omaro Gueye way na sangam ba jaaji jeng way na sangam ba way na sangam ba maa gën a tuute ci ñi ko way dëgg dëgg am maas asir ah, mbir ci deesu la gam-gam loo moo tax ni kenn du la tuutal ba di la ñaawal kenn mënu laa tegu tuuma ndaxte yàlla da laa setal waaw waaw ndeysaan ana soppi sëtu bi imam jug leen taxaw kenn du ko tuutal baa di ko ñaawal kenn du la tuutal baa di la ñaawal kenn mënu laa tegu tuuma ndaxte yàlla da laa setal ñi Ismaïla Mbàkke balla ana soppi sëtu bi imam bi kenn du ko tuutal tuutal baa di ko ñaawal kenn du ko tuutal baa di ko ñaawal kenn du ko tuutal baa di ko ñaawal kenn mënu ko teg tuuma yàlla la setal surtout imam ana ñu ko bëgg ana soppa yi sëtu imaam bi jaayule kenn du di la du la tuutal baa di la ñaawal kenn du la tuutal baa di la ñaawal mbàkke kenn du la tuutal baa di la ñaawal kenn mënu laa teg tuuma yàlla la seetal bilaay walaay bëtub imam bi déglu ma tuuti ma wax la ci bi déglu ma tuuti ma wax la ci sëñ bi moroomam musta am fii du am fële déedéet waaw waaw yàlla yow la seexal yow la siiwal yow la yaay mal di yow may la jëmmam ji lee baba ndeysaan ay sëriñ Fallilo yaa ma ta tag baayu benn ar ñu ko bëgg di gaañi naan teg sëñ ay sëñ Fallilou sëñ Fallou dama lay tagg ndax man dama laa bëgg ana bëgg Fallou yee ñoo bëgg galas baayu mbeen ndeysaan siñ fallo ay sëriñ falilu dama lay tagg ndax man dama laa bëgg dama lay tagg ndax man dama laa bëgg ana bëgg fallu yee ñoo bëgg ay bàkk yaa jërë wëyal yaa jërë feccal yaa jara ba dee Serigne Saliou dëgg la dëgg la Sali xar yi jaayu mu teral ana ji mu sagal ana ji mu siggil ana Sali xaat yee loxo jagam waay man tawfiq moom laay waayi ba keroog ba ba may dee waaye yàlla na yéex waaye dee gi yàlla na yéex man tawfiix moom laay woy ba may dee waaye yàlla na yéex waaye dee gi yàlla na yéex leen kii borom xel góor ñi teral ga mag ñi ba ñépp baax yaay mbéegum jeunesse bi waaye leen taxaw ñu màgg seen Ismaël waay yaa mën a baaxal yaay mbéegum na ñépp jug taxaw ñu màgg seen sa waaw waaw waaw waaw Ismaïla gis naa ne leen ñoom ci bëgg Bamba waa nu waa génération bi soxna naa tasi la du koy sa tubu imaam mooy sa dem naa këram te gis naa mbiram na muy doxee ci sëtu imam be ku ma jógal ku bëgg si meloo loxo loxo ay ma ko ñor gisumay laa di gor teel sëtu imam be waaw waaw na doxee xarit bindal lay bayit way def ko kaset man ci sa tur imam be ah waaw def naa xarit alal ji taxul way waral sa tur imam be yaa ay waay soppeem ndaw ñi la ana waa génération satub imam be eh sëtu bay jiili la soppeem ndaw ñi la ana waa jiili la soppeem ndaw ñi la ana waa génération Seydou Imam bi soxna yee nga xam ni yéen a bokk Serigne Touba ñoom itam ñëw nañu soxna Maguette Mbacke nga dana ca kaw toog ñu ngi koy nuyu di ko dalal jàmm soxna Mamadou Sow Mbacke la fekkoon ñu ngi koy nuyu bu baax soxna Ndeye Mati Mbacke moom it ma nga ci wet nga ñu ngi koy nuyu. ku bëgg Sëriñ Bamba loxo ca kaw am leen loo xal bi daay bi xal bi aw daa aw daa aw daa لا إله إلا الله Bakke Sëñ Bamba Bakke ñi ko bëggoon na def